asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV maa ngi leen di ziar ah, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, tey nag maa ngi ci benn angle taxaw bu ngeen ma gisee ma taxaw nag seen xel ci làmb rek lay dem parce que ci la ci la ñuy dox ci la ñuy wax mais nag bi ma taxawee ni dama am ku ma fi fekk sama frère sama rak Bokar Ndour kii moom ku ko gis tamit gis nga làmb moom làmb juy dem la macha allah di liggéey loo am solo ci làmb rawatina. lambi simple yaa ngi ciy def liggéey bu am am solo maa ngi lay ziare. yee grand frère Babacar suñu doyen suñu xarit suñu mag ah waaw chéri Tening ak Aram maa lay nuyu di la ziar ah di nuyu mbokku internet waaw Equivox TV di la ziar di am contentement a baax a baax. Hmm. ma fekk la ci sa moto nga toog te yow làmb nga lu waral toogaay bi fii fi ma dox ba fekk la. waaw làmb moom ni ko Père Max di waxee rek nee nañ ku ñu làmb loog rek maanaam dañ la jëy parce que maanaam làmb moom ak géej la rek boo xamante ni tey. boo ñëwoon tànk fa citerne sax uh-huh. teewul géej gaa nga fa waaw mu des fa ni ma koy waxee rek lamb moom du science exacte kon yaakaar naa ne ay probabilité rek la si nit ñi di demee maanaam ku nekk sa analyse wala sa xam-xam wala li nga yaakaar ne moom moo mën a am waaw ni a a demee dafa war a am si diggante double moteur nekk nag ñaari mbër yoo xamante ni tey seen style dafa différent mais ku si nekk a tuddee ci làmb Quench tey dafa jaar lutte simple mbapat ay Joal fu ne mu bëre fa tey Quench tey tur Quench bi tey côté Joal la jóge parce que dafa daan dem di fa mbapat xam nga mool ku xam mool ak yàq bu daan ñëw ay butéelu Quench lañ daan yor di ko naan di ko xoppoo di ko def si cumukaay gars yi naan mbër bi andi butéelu Quench mbër bi andi Quench su ma juumul tur Quench bi fa la jóge waaye double moteur nag mën na ne booy bu la boo xamante ni tey dafa ñëw dooleem ak gabareem fugam rek ñu dugal ko maanaam tey benn benn benn euh, ligne de conduite ba tax tey mu yegsi mais tey si yoonu làmb tey personnellement su ma doon jël favori tey Quench si laa koy jël jox ko ci côté expérience côté maturité waaye tamit côté bëre boo xamante ni tey yaakaar na ni ma ko weer rek dafa jaar si mbapat waaw. dafa jaar ci mbapat macha allah kon loolu nga wax defe naa ci ñaari mbër yi kon combat boobu xalaatoo xeex am ca bu bëri. xeex mën na si am waaye pour buntu lay nekk rek parce que ñaari mbër yëpp tey ku si nekk am amaana boo am buñ jàppantee action am waaw waaw Quench moom gëm naa ne mbër bu mu jàppanteel rek boo bëggee bëri di ngeen bëri boo bëggee bëri di ngeen bëri ba fu muy jeexee kon euh, jël bu rëy mën na caa am waaw jël bu rëy mën na saa am surprise tam mën na si am ni ma ko waxee rek Euh, probabilité laay deme maanaam tey sax sama xam-xam laay demee jël naa ko wen sa def ko favori gis na ne lamb yi fi weesu tey ñu bëri yuñ jëloon def leen favori tey mu ñëw demee neneen kon ku ak double moteur daal maanaam ku si nekk am nga sas tamit parce que ñaari champion la ñaari ndaanaan ku wen sa bu jógee tey ab gox mooy jóg topp si ginnaawam kon muy bar ñi géej ak li ko wër yéen tubaab jalaaw foofu yëpp dañuy topp si ginnaawam double moteur tam di mbaru bu jógee rëbës jóg Medina bu jógee bawol bawol yi naa ne ñaari xale la yoo ne seen mbooloo seen dayo Euh, sànq maa ngi koy wax Mohamed lim tombé rek muy drapeau chef de l'état bi euh, CEDEAO bi te xam naa ne suma ma juumul mu amaana du si du si yàq dara suma ma juumul waaw waaw doy waar am na solo Boucar kontaan ci di la jaajëfal Babacar rek di jaajëfalaat ñëpp yow moom di la ñaanal jàmm rek vraiment suñu grand nga suñu frère nga tey bokk nga tey suñu ñu tete si métier bi te fu ñu toog tamit dañuy am dañuy di ko wax donte jàng nañ waaye làmb tey bu ñu si jógee tey am yu ñu si def tey maanaam yu bëri maanaam yaa ñu si tete daal nga baax ñu la siy jaajëf yàlla na sa jàmm yàlla na sa jàmm yàgg yow tamit groupe bi yëpp nuyul ma TV waaw <laughs> moom suñu père la ndax mënu tete ci làmb loolu daa yàgg ca Top FM ba rajo bay nekk ca maison du parti socialiste loolu yàgg na muy koo xam ne macha allah tamit ku gis Père Max rek la ngay jëkk xalaat ci moom yemale parce que buy def analyse am du xool mbër mi mu yor ak ki mu yorut waaye tey dinaa ko ziar fekk ko mu toog fii indi ki nga xam ne moo di Quench mook Double Moteur ñu war a tey yëq sekk benn jàkkaarloo Père maa ngi lay ziar. delloo ziar fii. am nga jaam. waaw mbaax. man waa Lamsar. ñëpp nga fa ñëpp nga fa. yaa ngi toog jàpp sa njàmbur. waaw di eh, respecter contrat bi ma lié ak Baba jaw rek. Ah. Thiam production. diggante Quench Double Moteur. Mm-hmm. ma signé avanant indi sama mbër. pour mu def face à face loolu moo waral sama jataay tey. Hmm. combat bi jël nga ko xaw na yàgg tuuti léegi ñu bëri ko incha allahu rabi la set soreetul mu mel ni ñaari a ci des am na ñoo xam ne favori bi dañ kaa jox sa mbër de trop ci côté bëre bi loolu yow boo koy dégg nu mu nu muy def si yow yow mi nga xam ne yow yaay tàggat mbër mi. non ñun waajee wu ñu favori déedéet li ñu waajee mooy ku jël sa avance da koo jël pour daan la. pour moo tax lu ñu daan def lu def nañ ko nag. xam nga yooyu moom waaw ku jël chance jël ko pour daanu déedéet déedéet maanaam mbooleem lu ñu daan def def nañ ko daal def nañ sax lu ñu daawul def ngir bëgg am ndam. Quench euh, double moteur mu mel ni dugg na Lansar daan fa fëgala tey mu war fa duggaat te fëgala ku ne xam na ne mag la ci Quench ci wàllum làmba tey mu war fa duggaat est-ce que bii yoon da ngeen maanaam pare am ngeen ay possibilités yu ko stoppé ba dootu fa dugg wala mu jëlee fa defet non looloo tax soo ñu jël combat bi. parce que bu daanee fëgala mënatuñ koo bañ mais bu jëlutoon fëgala duñ ko bëreek moom dañuy witi leneen. ah bu daanu kon kon duñ ko jël dañ dem witi leneen. mënul daan fëgala ñu di ko bañ. di ko bañ. Hmm, foog Wens dama koy dama dama koy faral keroog laaj naa ko. ko ne wàllum làmb mook Double Moteur dafa tardé mais bu tardé kon sax duñ bëre. non du tardé bi dalaa mënta wax lii ma la wax parce que ñun ñoo ko ci puus mënul daan fëgala nga di ko bañ. te la fëgala làmb dafa am yoon mooy li ma la wax rek bu daanutoon fëgala duñ ko jël dañuy wite leneen li ñuy wute leneen mais bu daanee fëgala mënatoo koo bañ waa Rëbës tey loo leen di wax ak waa bari ñi bés boobu waa ñu ñëw rek ci discipline waaw euh, fair play ku ne ànd ak sa mbër mhm. feesal stade bi del di ñaan nag bés heure ba nag yàlla ànd ak ñun ndam la ñu wit si Double Moteur yomb naa daal ah non loolu moom mënuma ko wax mbër la comme yeneen mbër yi ndax lu yomb amul ci làmb ci lu yomb amul ci làmb ci mhm. mbër la comme yeneen mbër rek mais ñun li ñu indi ki ñu indi mhm. wóolu nañ ko am nañ ci moom confiance lool yàgg naa gagné bés yu mag dañuy xalaat nag bii bokk ci yim daan gagné. bi ngeen di mujj arène nationale match li ngeen fa jëlee ak Queens. waaw loolu lépp ci euh, yoonu làmb la ndax làmb jooju coow li daa bëri woon enjeu bi bari moo tax bii ñu jiitalee avertissement benn xalaat na naa ne kenn du forcer pour daanu waaw mais nag ku ci ne continuer sa yoon. waaw mais di ngeen ko bàyyi mu bëre. déedéet non làmb moom li ñu war a def rek xam nga nag la nga war a def doo ko wax. Mm. Ah, kenn kenn du jëm guerre di wane say arme waaw mais li ñu war a def yëpp dañ koo def. doole xalaatu ngeen euh, Double Moteur sàcc leen. déedéet loolu duñ moroomu loolu te buñ sumee koo nga xam. daan hmm. hmm. maa ngi entraîné rëy làmmiñ la rek. ak bëri wax. déedéet déedéet du fen mais dama ne mbooleem. Coens dafa am yaakaari Lamsaar yor raaka yaakaari Tëngéej yor yaakaari Bargny ak waa Kër njaay loo kon doful xam na li koy xaar hmm. bu sumee ko andiwul doole dafa yab nit ñi waaw te ñi ngi xalaat am ci ndam nag bu baax yal na yàlla ànd ak ñun. kontaan ci yow. jërëjëf Fils. gis nañ menaat saw Coence wax na Sawru maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu Babacar. am nga jàmm waaw sant sëñ Tuubaa baax a baax a baax këram. Euh, actuellement fu ngeen toll seen mbër bopp ba tey kenn gisu ko dubul ma tër mu làqatu euh, lan la. waaw dara toog làqul liggéey rek xam nga am na combat boo xam boo ca jëmee. Euh, amul ajatul wax. jafa fi sës. fi ne nii fi ñu toll na mooy dimanche jot rek parce que li ñu def nañ ko yàlla rek moo ci des di ñaan yàlla suñu borom yàlla ànd ak ñun c'est des foofu rek li ñu toll tolluñ euh, dama ko jël mu ne euh, maanaam moom Quench mu ne maanaam moom tardé ku bëri loog double moteur Père Max Mbargane ne xëy na daa loolu sax demewut noonu ku daan fëgg mënatu koo bañ loola moo tax yow ñaari wax yooyu noo koy analyser ah, waaw ko nañ ko nangu la mu wax rek man a bëre kenn ko def ko sa preuve parce que dafa tey même bu fekkante tey ci moom dafa jël double moteur jël ko ci ko Assane ña may ko sens bu ko dugal moteur jël itam jël ko may ko sens kenn ku ci ne prouvé ñu nekk aussi ñaari ñaari ñaari ndaanaan parce que argument kenn ku nekk mën jox argument mais lu ah, loolu mooy l'essentiel bi mais l'essentiel bi rek mooy loolu quoi. mais bés ba yàlla ànd ak yéen ku wens ñu ngi wax ne côté bëre bi moo leen ci ji raw maanaam moo leen dàq bëre am na ñu bëri ñu koy wax loolu yéen a ngi koy dégg est que loolu du doon problème bés

chaque jour mu wax lu dëgg waaw. ren de bëri na favori ren de ay favori yu daanu. waaw jàppoon ay favori ñu daan leen. waaw mooy li ma la ba léegi rek xam nga favori dafa metti favoriser euh, kii mbër dafa metti de bu la ko servi indi leen problème problème bu mag a mag lañ lay parce que yu bari yoo daan yoo loo war na fonk doo ko fonk. muy erreur beneen bi rek balaa may jeex rek di di di di yokkaat euh, supporter mu ñaar yëpp muy fant Double Moteur ak Bargny ñu ànd yar ak teggin ndax lamb ji toujours loolu lañ ñaan. xale yi nañu ànd ak yar ak teggin parce que coince la ak double moteur ñoo mayante xaalis te ñoom ñaar ñëpp ñaari doom lañu parce que man tey bu ay sportif man loolu yëpp ak yeneen mbëri ci war a yëpp di gërëm itam promoteur bu baax Baba Diaw parce que moom ndaw la ndaw la te jàmbaar la man na di gërëm aussi Abdoulaye Ndiaye mi coordinateur am di gërëm di gërëm itam macha allah. Ah, ñëw ñooy couvrir làmb ja kii nag jàpp naa ne yéen ñëpp ci war a jàpp. mais drapeau Cheikh Ba Messi. Messi comme moom la ñu wax c'est le Messi de l'arène. c'est le Messi de Medina. waaw kon nag dama mën ni boo déggee ma ne c'est le Messi de l'arène. waaw parce que bu ñu nee Messi nii mooy borom Medina. waaw baaw làmb jox ko Messi. kon yaakaar naa mbir naa moo xewle. waaw kon nag jeex na combat bi war naa dem ci archive yi. a ayca kon ca cay dem baba le promoteur. ñoo <laughs> fay. baba naka yëngu yi. waaw sant yàlla bu baax. mu mel ni comme ni ko Abdoulaye waxee taxawal nga lu doy waar. Quench double moteur. Mm-hmm. waaw xam nga ñun. waaye saa yi dañuy jéem rek. si ginnaaw laal dañ nekk di jéem. macha allah comme voilà tey bu ñu am si làmb. incha allah xam naa si karam la. waaw ah, mais Babacar damay sant maintenant maintenant Fass Colobane Gueule Tapée xam nga sant suma ay mbokk ndax ñoom ñëpp jàpp nañ si sant tam sama doomu mag yi mais rawatina kii xam nga Ada Diaw sama doomu mag la mais ah, ah, waaw sa waaw daanaka doom la sama doomu mag sama doom la waaw mais xam na ni moom nga bëgg sax bis bi bàyyi Serigne Touba kon dama koy encouragé mu gën a góorgóorlu mhm. du jox euh, amateurs yi amateurs yi. Mhm. le 7 novembre. le 7 di leen gis gis. luñ mës a gis. incha suñu borom. doomu baaba maa ngi lay maa ngi lay delloo ziar tur bi nan la. aada. sa papa ngi nii nekk làmb nekk promoteur nekkoon amateur ba nekk tey promoteur loo koy wax ak nu mu war a demee ci le 7 novembre Quench double moteur. ah non xam nga àdduna loo gis tey desee baax. desee baax parce que boo teeyee rek tey dina la woon yoon bi di nga ko gis te li ma koy conseillé mooy jeune la xam nga nekk si yoon te nit boo nekkee si yoon. da ngay day bëri ay fakkatal te foo teeyee rek di nga gis fakkatal yi mais boo teewul rek doo gis dara te di ko encouragé di ko ñaanal yàlla bis bu mu jëm mu gënal ko si bis yëpp te parce que yi si kanamam moo ëpp yi si ginnaawam waaw parce que axlu làmb boo nee axlu làmb dafa yaatu boo ñëwee amal ak ñëpp jàmm xam nga du dund ak ñëpp jàmm boo mooy waral boo xewlee ñëpp ñëw parce que boo gisee ay xaritam ak ñëpp bàyyi lépp seen yitte yëpp ñëw si li parce que liggéey mooy priorité mais ñu bàyyi seen liggéey yëpp ñëw parce que am na lu mu leen wan parce que nit moom li la woon rek la la loolu nga koy jàppee waaw kon di ko ñaanal yàlla bis bi réussir ak jàmm ñaanal mbëri jàmm ñaanal staff bi yëpp jàmm ñaanal tam parrain yëpp jàmm di ko wax tamit naxaar mais association jàppal ma jàpp lañ tuddee làmb ji waaw ak bu canal 4 waaw <laughs> waaw muy nuyu sama gars yi Abba ngi nii taxaw am dee ngi nii taxaw mais ñi moom xam naa damay préparé wu def ak ñoom benn plateau spécial baaba ah am di loolu laay def incha allah defal loolu loo def yow loo def moo gën nekkal si jàmm incha allah yaatal ba mu yaatu jaajëf te doom day la ci bés bi moom lañ tuddee gaaro gaar ak Sidi Diamaguène Sidi gën nag xam naa ko ndax li tax ma xam ko mooy dama koo fekk fa nga xam ne moom mooy mbuur ca kër Mansour Diop numéro 2 Omar Mbaye taal bi sëñ Fallou borom boulangerie ba nga xam ne moo nekk ca rond-point ndaje Balde defe naa xam nga rond-point ndaje ndax mbuur nga dëkk man ngi lay ziar waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax tur bi Moustapha Seck maay président artisan artisan canal 4 dëkk Gueule Tapée nga dëkk Gueule Tapée te ku ne Gueule Tapée ne Médina ne Fass ne Colobane baaba dëkk foofu mu jël bés dëpp duppee la ko mu mel ni kon moom li olof naan dërëm bi de génnul gaal gi la baaba def waaw baaba na moom balaa moo koy gërëm dafa am ñu mu war a sant gërëm ba pare gannaaw bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sang si sang yi n'est-ce pas di ñaanal sama yaay ju baax ji yàlla na suñu borom xaare àjjana fa mu tëdd yàlla na suuf sedd si ak mboolu mu way dawlu nag waaw di gërëmaat encore suñu bàyyi ki nga xam ne mooy El Hadj Ilimane Ndour ak ñoom tey li yëpp bu amee yàlla ñoom a tax parce que ñun ñu nekkee si canal bay yaatu yàlla ñoom a tax ñoom ñoo ñu fa teg ñuy ñaan na Iliman Ndour yal na yàlla wëral cëram ba mu gaaw dellu si waat waaw bés bi nag daanaka mën nañ ne moom lañu ko jagleel parce que tey journée bi journée artisanat la ñun moom lañ ko jàppee kon tey képp kuy artisan rek yaa moom bis bi donc ñuy ñaan na artisan yëpp ñu xam ne bis bi tey bis bu mag la seen si ñoom kon mooy première journée de l'artisanat ñun noonu lañ ko tuddee waaw baaba nag ñun du ñu doyal di wax si moom parce que Thiam production la ndaw la ku ko xam-xam ni si dëggoom lay dox si social lay dox te vraiment tey Macky Sall bu taxee en tant que président Macky Sall ñu njëkk a parce que mooy le président de tous les Sénégalais ak sunu yaay jooju di Marème Faye Sall donc tey Macky buy investir si l' emploi des jeunes bëgg a jàppale jeunes yi na baaba jóg taxaw sol dàllam di si dox waaw tey canal 4 bu demee ba màgg canal 4 léegi dootul fu ñu exposé ay salon donc léegi ay créateurs ñoo fa nekk ak ay formateurs. donc euh, Baba Dia initié ko ñu nekk si canal bi di xool xale yi liggéey mu leen di jox ay liggéey ñëw di si canal bi ce qui veut dire donc produit bi mu dinaa lay jógee di exposé wu Gueule Tapée donc loolu yëpp moo ko initié donc ñu ñaax rek ñu Macky Sall ñu ngi jàpp si combat emploi des jeunes waaw kon nag li ñuy ñaan mooy ñun combat bi tey mbëri comme niñ ko waxee rek gaaroo gaar ak Sidi Maron ñu bëri ko Sidi Diamaguène ñu bëri ko si fair play xam ni aussi àdduna moo leen di te bëri kaf la rek ku daan rek yóbbu te lépp ndam li Sénégal lay desaat donc euh, ñu leen di ñaanal jàmm yàlla fàkki leen si jàmm ak seen njaboot ñoom it di remercier nag waa Canal 4 yëpp aw ma seen fay Badou Coulibaly di ko dale si staff bureau bi ñëpp mënu ma lim mënu ma mënu ma lim parce que ku lim jum mais daal maa ngi maa ngi teg daal nuyoo bi si Canal 4 waaw. soxla naa soxla naa ñaari lal foofu comme ne loolu moom Badou moom xam dina la ko jël sa sa foofu moom sa waa foog ku ne am te day am sax day nekk sax incha allah su neexee yàlla jeex yàlla baax na loo waxoon di nga ko waxaat. bu làmb ji passé dinaa ñëw de. incha allah su kawam rek am nga jàmm. waaw sant naa bu baax a baax. sant Quench double moteur. Quench double moteur combat bu rëy combat ñaari xale. combat ku leeral. di dem daje koo xamante ne ni dafa juumoon. Quench. ni fu mu juumee woon. ni mu bëree woon ak Diène Kairé teg ko fenn. waaw dama ko bëggoon mais bi mu ba pare dama ko mere moog Diène yëpp dama leen mere parce que du loolu lañ doon xaar ci ñoom quoi. mais combat bi la ñuy xaar mu rattrapé wu combat bi la ñuy xaar mu indil ñu wan ñu beneen façon wan ñu li nga xam moom la ñu xam ci moom wan ñu li nga xam moom la ñu tàmm a gis ci moom double moteur mi ngi ci yoon bi bon combat la boo xam ne ñaari ndaanaan ñoo koy bëre que le meilleur gagne waaw. ñoom ñaar bés ba dama dégg ku wens dama ko jël mu ne moom maanaam retard ku boole ak double moteur waaye du adversaire am mais waaye waaw. bu daanoon jën kayre du bëre double c'est mais Père Max Mbargane nee na loolu euh, moom sax d'accord ci parce que nee daa daan fëgala te fëgala magu double Quench la nee na loolu moo tax ñoom ñu jël ko. làmb mën nga ñëw ci écurie daan magu nit ki te taxul te kooku mën na bañ a raw ko fëgala dëgg la mooy magu Quench ci biir écurie bi. mais ci côté làmb tamit est que tey jii nii ñu Quench di bëreel bis yi Quench di am ci làmb fëgg la am na ko ba pare Quench moo ci toll comprendre nga fi mu toll nii bu fekkee ne bëgg ak bañ day am ko ci Quench la. tey bu doon fëggal ak Quench bokkuñu écurie ñu war a bëree amaana fëggala Quench moom mooy choisir si day bëreeg fëggala ou pas comprendre nga moo tax combat la boo xamante ni daal ñi ngi ci ñaan yàlla def si jàmm et di encourager promoteur bi di wax amateur yi ñu ñëw en masse ñu ñëw ñu ñëw ñu wanewaat ñu feetuwaat parce que dimanche passé Assane Ndiaye yëngal na stade bi ah waaw noonu la war a mel làmb noonu la war a mel chaque jour noonu la war di mel parce que suñu yëf la ñun ñoo ko moom nañ ñu ci jàppale waat encore une fois ngir yàlla te Macky Sall bàyyi ko ñu muy dem di choisiral nit ñi seen maire yi moomu leen waaw. da ngaa dugg ci politique. bool dugguma si politique ñëw Grand Dakar naan dañuy choisiral ku fa. leen fa choisir ah, Baptiste du fa toog duñ ko votel de. loolu beneen <laughs> mais kooku koy Moodu Mbaye nee sa Jean Baptiste du fa toog. kon xanaa kon xanaa nda ki Ndeye Sale fay toog. Ndeye Sale la waroon tànn tànnul Ndeye Sale di tànn ay Jean Baptiste Jean Baptiste xew def na fa ñaari mandat Grand Dakar amagul tali barki mam Cheikh Fall benn tali bi waroon a dugg biir Grand fatt na ko jaay ko benn ngeew yow doo ñu bàyyi barki borom daar du fa toog. ah bu ñu ko votelee nag. ku koy voteel. waa Grand Dakar Jean Baptiste trahir nga Grand Dakar waaw. ñaar seen combat war na mën a neex de. waaw dina neex kay combat bi moom amaat. Caaroy ak doomu Grand Yoff. waaw loolu day neex loolu dara du ko dàq mais Grand Yoff xajul ci kenn budul Caaroy sax Grand Yoff xajul ci kenn Grand Yoff manko rek booloo doon benn non xajul ñu kenn. mais bis ba soreetul de. waaw soreetul liggéey nañ li ñu war a liggéey saa yi moom ku ci nekk li nga liggéeyul woon moom munoo fi amaat. technicien la de. waaw technicien la man technicien laa comme moom technicien laa comme moom te liggéey nañ li ñu war a liggéey yëpp seetaan nañ ay combaam yi mu bëre nit ki booy bëre moom da ngay seetaan ay combaam xool seetaan nañ ay combaam xool nañ suñu coach yi wax nañ li ñuy bëre préparé nañ ko ak ñun grand F mbooloo mbër yëpp préparé nañ ko waaw préparé nañ ba pare non jaaxalu ma nag wax dëgg yàlla. Zarko bu ñëwee gunge la tey lu muy def ci yow en tant que sa grand frère. non am na lu muy def ci man parce que nga daf ma sànq ci ma lu yàgg wax ak man requin eh, Pablo ñoo ñu dañoo sonn ci combat bi billaahi dañu sonn ci combat bi ak coach Grand Yoff mbooloo yëpp dañuy préparer combat bi sonn ci bay bëgg a dee di ziar sama staff bi yëpp nag di nuyu ñaar ñu ma àndal bomb ak kii euh, Simon di nuyu waale Zarko mi ma àndal maa ngi nuyu gaa yëpp daal di bëgg waa Grand Yoff si tam ma lañ jarkale Kasoor Arafat di woo waa Gambie yi dañuy ñëw ci combat bi. Gambia Gambia dañuy jóge ba Gambie ñëw ci combat bi di woo tamit xam nga waa Malika bi yëpp nañ préparé ñëw si tam lañ ñu dem defaral waa ji bagage ñu bisiwaat incha allah rabbi di ñaan yàlla may ma ndam amin waay jaayef. maanaam olof na na mbay ci sa wu tànk baaba comme niñ ko waxee rek ci ay mbokkam la commencé maanaam village artisanal buñ ko waxee sunu xel day dem ci Médina Gueule Tapée Fass Colobane Rebeuss ba Niayes Thioker ba biir Dakar Plateau bi yëpp. defe naa ne foofu benn zone bi la le président président ah kii mooy président de la chambre de métier de Dakar macha allah El i Maguette Mbaw papa maa ngi lay ziar. naanu ko Salike maa ngi leen di ziar baax di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu itam jataay bi seen doom baaba def lu mel nii woo leen ci ngeen yar ko. maana teg ko fi ngeen ko war a teg pour man parce que su ngeen ko tegu kon fi ngeen a teg yar ko ci ni ko war a yare est ce que dina mën a réussir lu mel ni ba woo leen ci tey lu ngeen koy wax ci bisu la set. li ñu koy wax d' abord di ko gërëm di ko sant waaye di ko ci ñaanal yàlla ndam ba lim ci sàkku yàlla may ko ci saayir ak baatin yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal bég itam ci li nga xamante ne dëkk na ci koñ bi di xool lépp loo xam ne dana yëkkati Medina. mu nekk ci moom ñi mu àndal ñëpp vraiment di collaborer tout suñu rak suñu xarit moo nga xam ne mooy yetu caam jiite euh, bi si yu Sénégal yow yow yow village Sarr bi su mu jun waaye jiite euh, commission interprofessionnelle bi mu jiite leen kon euh, tey bu ñu àndee moom ak njugo mi nga xam ne mooy secrétaire général am ñu àndandoo ñëw may président chambre du métier nga xam ne kon lépp benn parce gis nañ ne Médina soxal na leen waaye lii soxal nañu na xam région la yor waaye région bi itam teewul sunu sees dafa nekk ci biir Médina kon lépp lu ci waay di def ci lu koy yëkkati ak lu koy rafetal ak lu koy taaral loola dañ cee ànd ndax suñu xol la ciy sedd guy ndax itam euh, nooy seen dëkkandoo kon loolu dañ koy gërëm bu baax a baax a baax di ko sant ci xalaat bi nga xam ne am na ko ci ñun ba tey euh, yàlla dogal lu mu jox lu cër bi loolu dañ ko ciy gër di ko sant bu baax a baax waaw. papa maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar. père Yatou Thiam. waaw. yow looy dolli ci bés bi ak looy dolli ci baaba. waa li may dolli ci bis bi mooy kontaan lool ci bis bi ndaxte cër bu dal day nii boo ko jëlee jox ko artisan yi jox ko suñu président muy président de la chambre des métiers de Dakar El Hadj Maguette Mbow kooku ñun ñëpp dañ ko rafetlu euh, tey jii Euh, lu ëpp mbégte bu amoon dama laa na ëpp na mbégte tey jii parce que artisan yi kontaan nañ parce que boo jëlee seen kilifa tudde ko drapeau bu mel nii ñun ñëpp ñu war ci taxaw baaba nekk artisan en plus sedd artisan yi vraiment ñoo ngi koy remercier bu baax macha allah. kii c'est secrétaire général. Ndiouga Dia lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw li ma ciy dolli rek euh, di wax baaba xale la. xale bu mën a bokk ak mag la te xale boo xam ne bu neex a àndal la. tey nag dafa def lu rëy ndax euh, boo dëkkee Medina yaroo Medina tey nga jël drapeau jox ko président chambre de métier. ànd ak Yatou Thiam di président écrit bi ñoom ñëpp ñu bokk artisan yi yaakaar naa bis bisu artisan yi du bisu kenn loolu rek laa koy sant yàlla na si yàlla ñu tax jàmm dafa ñu xéewal eh, jëmale ñu si kanam incha allah. ah Balde double moteur a ngi nii ki ma war a bëre Quench la 7 novembre incha allah rabi ci arène nationale ci loo ne. sant Serigne Touba rek gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur waaw di leen nuyu di leen bëggee di leen jalal jàmm di nuyu waa adduna xam nga di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di jaala ñu génn àdduna waa axlu làmb yëpp ñu leen di jaale ñi fi des ñu ñaan yàlla xam nga yéexe leen waaw bàyyi leen fi ba ci kanam kanam daal. ma mm-hmm. Moteur nga jël komba ak Quench ñu dem ba benn moment ay weer kenn gisatu la xamuñu foo duggoon ñi nga naan yaa nga Mbour ñi ne yaa nga Saly ñi ne yaa nga Thiès maanaam daal am na ñoo sax dañu jàpp ni génn nga Sénégal foo newoon. waaw dëgg la làmb ji moo ko laaj rek xam nga làmb ji dafa yàgg làmb ji boo xoolee presque dem na ñaari at. Mm. xam nga ñu koy mu nekk làmb joo xam ne tamit làmb bu ñu soxal la bu ñu bëgg la xam nga. nekkoon suñu ruq di liggéey kese loolu kese la. Mm-hmm. waaw du waaj pour la set daal incha allah. nga laaxatu woon daal na ci ruq. waaw laaxatu woon nañ nag. Mm-hmm. waaw génnoon nañ quoi. Mm-hmm. noon nañ nekk suñu bopp di waajal suñu bopp bu baax a baax. pour la set incha allah. fi mu nekk nii waaj nga ba pare. waaw instant dara desatu fi instant yii moom pare nañ ko wax dëgg yàlla. Quench seetaan nga ko bi ma ko jëlee euh, fële ci salle bi. seetaan naa ko waaw seetaan naa ko muy wax rek. waaw seetaan naa ko muy wax rek. seetaan muy wax. li mu loo ci jàpp. li mu wax aw ma dara lu ma la set yàggatul mm. sa wax moom taxul biir fees te comme di la set moom ay fan ci des moom dimanche bi di ñëw la moom pour man jaratul wax ju bari mm. en tout cas daal li mu wax na ko dëggal rek na dëggal boppam rek mm. waaw aw ma dara lu mooy wax moom. moom jàpp na ne ci côté làmb tollawu ngeen sax xëy na ñàkk euh, retard wala boog ay adversaire ko nangu te jël moo tax mu jël la waaye du sax du ngeen sax ay morom. waa xam nga loolu mooy doof loolu mooy ñàkk expérience suñu tollawul woon tey jii nii niveau wala dara du ñu bëree làmb du ñu boole ñaara mbër ñoo nekk si làmb ji duñ jeex bëri nañ fi waaw kon bu ñu làmb boolewul woon du ñu bëree ñu làmb boole rek ñooy bëree ñu làmb boolewul du ñu bëree yee moom yow maanaam wàllum dof nga jàppe li mu wax waaw li muy wax waxu dof yéen yéen ma ko gën xam nit naka la lay làmb moom ngeen seen avance taxaw seen contrat taxaw nga naan ay làmb ñoo nangam ak nangam di am na yoo xam du wax sax ñoom dafa dafa am na yoo xam ne mbër sax waru ko wax waaw parce que dañ def suñu ay preuve liggéey ba làmb boole ñu war a bëree moom nag dafa tardé ci làmb waaw 2009 la dugg ci làmb ñun 2015 lañ dugg ci làmb. Mm. ñuy bay suñu waar ba làmb boole ñu war a bëre. Mm. maa ngi dégg muy wax rek aw ma dara nag lu ma koy wax wala dara. loo dégg muy wax. non li muy wax yéen yéen ma ko gën a dégg. fekk nga fekk na la ñëw na ba sa koñ sax nga di ko dëkk. non loolu sa waa man mosuma di ko dëkk. non non loolu loolu muy wax yooyu amul benn la fa mus a ñëw gars yi di ko ruube affaire yooyu noonu di ko dëkk ma tombé ci ni ñu taxaw affaire yooyu noonu loolu benn yoon la mos a am du ñaar yoon du ñetti yoon benn yoon la mos a am te lool du moom kese lañ ko def def nañ ko fa ay mbër yu bëree bëri xëy na moom moo bëri wax di wax rek mais foofu noonu mbër bu fa mos a jaar gars yi nee nañ la yaag diw yaag diw yaag diw yaa ngi dégg parce que ñun ay booy lañ rek nekk suñu yoon di liggéey donte boobu làmb boole wuñu woon sax affaire yooyu noonu mais am nañ droit nit raw ñu ci làmb ñu bëgg a bëre ak moom. ne ko may ñu chance ak yooyu loolu kese la du dara. Mhm. waaw loolu la. mais dàq bëre bi mu jàpp ne moom moo la ko dàq def nag. am na tamit ñu bëri ñu koy wax ne moo la dàq bëri waaw loolu noonu bu ko jàppee tam boppam lay nax la moo tax mën na la set yàggatul loolu amuñu si leneen luñ siy tond wala luñ siy wax ñun ñun ay doomu ndakaaru lañ ñun dañoo fooyee bëree mën na bëri bi muy wax ne moo la ko dàq def waaw yooyu ay détails la rek doomu ndakaaru lañ yaa ngi dégg fooyee bëree yaa ngi dégg dëkk ci peggu tafes gi yaa ngi dégg jaara écrit face xam nga nekk écrit rëbës kon ñun mën a bëre jaaxaluñu hmm. am na yoo xam ne ay détails rek ñun mën a bëre ñu wax dëgg yàlla. mais moom mbapat na de lu bare bari dégg naa ko ci mbapat na ci côté Joal bi ci les îles di saalum côté yooyu def na fa lu bare bari. loolu dégg-dégg nga ci am dégg-dégg nga am rek tegoo ci sa gisoo ko yaa ngi dégg fii amul benn mbër bu fi mbapatul mbër yëpp mbapat ku ci nekk mbapat nga yaa ngi dégg xëy na ñii dañuy mbapatee côté bi ñu mbapat côté bi nii ay mbapatam nga ci am yu mu jël ci mbapat wala dara wala da nga ko gis yow bu dul dégg-dégg. kon da nga jàpp ne jëlul dara ci mbapat no dë déggoo li ma la waxuma jëlul dara ci mbapat de dama ne la laa la wax ndax de yow. mën naa ko a gis te mu def ko. waaw man mii mën naa jël ay trophée ci mbapat doo ko gis te ma def ko di. Ah, waaw loolu moo tax yooyu amul chance. bëri dóor la ñuy def man ak moom te la set moo ñu boole incha allah moo tax yooyu yëpp amul chance loolu avenir carrière am def naa ko man sama carrière la def naa ko benn tàkkusaan moo ñu boole la set li ma ci ak moom du lenn lu arbitre siffle ma duma ko daan ko amul leneen. mën ngaa duma ko wenn si daan ko. barke Serigne Touba Mbacke. billaay wallaay si Hmm. wallahi azim da nga koy duma daan yàlla nañu yàlla suturaal bala set dimanche yàggatul moo tax ma ne wax ji jarul muy bari parce que dimanche yàgg daan na ay ay vainqueur de double moteur waaw amagul benn defet am ak benn match nii daan ay champion daan ay ndaanaan loolu kenn wérante wu ko man mii dama daan ay champion daan ay ndaanaan onze combat laa def benn defet laa ci am waaw dañ bàyyi xel loolu defet nga am benn defet bi nga benn defet nga am waaw te man machine yi lu kenn waaw man bu arbitre sifflé damay andi damay andi li ma li damay wane li liggéey damay ñëw imposer jëlee fi sama adversaire dem sama yoon. match nul du fa am kon. xalaatu si la xalaatu ma ko sax man match nul xalaatu ma ko sax ci samay combat wax dëgg yàlla man combat bu ma am laa la wax li ma war a def dama koy def waaw. sama sa ñaar yoon nga ne dugg Lansar. waaw bi mooy deuxième fois moo fay dugg waaw. waaw bii la ñuy yàlla mu jaaraale fa mu jaaroon rek yàlla may ñu ndam lool la ñu siy ñaanal yàlla. looy wax waa Xanda waa Rëbës ASC bi waaw. moom nee na ne moom sax nee na ñu wàccuñ ci terrain bi ñooñu bëriwuñ. waaw gars yi pare nañ gaa yi pare nañ mafia bi pare nañ bu yàgg hmm. juge yi la ñuy xaar rek waa gars yi yëngal ci kaw ma gësam suuf amul leneen hmm. waaw amuñu leneen luñ ciy wax walla dara dañuy xaar gars yi xam nga ñu dem esaat duy ko ba mu fees dell xongal ko ba mu xonk cuur ma hmm. duma ko daan ko. kontaan ci yow. incha allah ñoo far baax a bëgg. waa kër waa Lansar boo xooleen ñoom la Abdoulaye Ndiaye di pousse noonu pour ñu taxaw noonu parce que dañuy problème la ñuy bañ promoteur bi tamit jël na maanaam ay maanaam li nga xam moo ko war parce que jël na police police a ngi nii gis nga ñaari auto police a ngi noonu garé waaw waa groupement mobile d'intervention ñu leen di wooyee waa GMI ñooñu ñooy waa Bargny ak waa Lansar parce que problème la bañ quoi parce que boo xoolee fi ñu nekk tamit Balde. li am solo mooy ñu fexe ba affaire bi kii daal jàll ci jàmm Quench nag ñun raw nañu ba dugg ci biir waaw taxaw fii xay na kon dañuy bañ problème ba tax ñu leen taxaw leen fii damay jubal ci doyen bi grand laay Ndiaye parce que moom ku wax ku Quench wax ko moom grand laay tax gars yi pousse leen ba ngeen yegg si fii non ñun ay nitu jàmm la ñun moom suñu lépp siraatal mustaqim xëy na it dañoo am lu ñuy ñaaw njorte ci ñun ñun it jàmm doong lañ bëgg a ah, ñu reculer ma ndax samay njaboot ñu ngi nii Quench booy dugg na ci biir waaw bu yàgg na mu ngi ci biir waaw parce que dama dégg ku mel ni côté euh, Cheikh Diaw sax laay wax mu ne ñoom ñaar la ñu àndal moom Cheikh Diaw moo ñëw ak ki nga xam ne mooy musigu ki nga xam ne moom mooy double moteur yéen ngeen indi L200 ba mu fees te na ñoom waxuñu woon leen loolu est-ce que du loolu tax ñu pousse leen ba ngeen taxaw fii. non ñun amuñu lu dul suñu mbër ñun ku ñu xam xam ne ñun kenn xamuñu ci violence suñu mbër nag am nañ beneen droit fu mu jëm ñu daal di koo jegeñ waaw ñun moom xamuñu violence ñun ñëw bëree daan ñibbi loolu lañ xam. waaw ma mosoo dégg jabootu Quench booy ñu ne ñu ngi bëre di histoire amul. waaw ñii ñu àndal nag ay rakam dong lañ ay sapeur ay Malta ay Balde sama gars yi ay Karim Kabdo bis ay met ñëpp a ngi nii ñii ñëpp ay mbërle. double moteur laaj naa ko ci lu Quench wax mu ne waxu dof lay wax. a ah, xalaatam dong la wax double moom li ma doon wax rek laay wax suma rakk la suma frère la du ma wax mukk lu ñaaw ci moom. di ma waxoon démb moom laa wax tey di ko ñaanal nag bés bii nii hmm. ñu lënk rek yóbbu ko mu jooy ñibbi dama ko koy wax pour toujours heure bu ma dama na kaan naa day comme salaamaaleykum maaleykum salaam lënk ko jooy mu ñibbi day seejaw da koy téye mu na nii mën a ko une autre fois rek bu amaatee combat nag yàlla na ko yàlla may ndam mais bii moom parfois ñu lënk ko yóbbu ko muy jooy de loolu dafa leer bala set bu neexee yàlla yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm amiin amiin waaw ñu bu baax a baax waaw yow itam ci ñi gunge Coenso bokk. lan moo tax ñu ne leen ñaar ngeen indi mbooloo mi. non Coenso xamante ne moom moo la ànd moom kese foog mu ànd ay booyam ànd ak ay gumbe ko. am lu lu ñuy tiit du man fuuf amul sax lu muy tiit si moom. Hmm. non non. Coenso li mu ndax yomb naa man. tuy mu entraînement xajul si double moteur keneen ko dul double moteur sax Coenso ko man. li hmm. ma la wax ne du ay caaxaan. Quench li nekk si moom yaakaar naa double moteur am na sérieux problème son waaye waaw combat a matee cinq minutes ëpp na ah. waaw. waaw maa lay siyaar di la. tur yow la ñuy woowee sapeur dégg na. maay sapeur Bargny. ñoo bokk ak Quench. ñoo bokk lépp kañ. Ah. waaw waaw na. Mhm. Ah. waaw bés bi mu jëm diisul ci moom. non diisul même double moteur bu ñu ma ko joxoon sax ànd may tëdd nelaw. yow mi bilaay walaay te boo ko Quench daanee dinaa ko ñaar revanche moom Double Moto boo gisee ñu ñëw def mbooloo ni nag dañ defoon benn jàkkaarloo arène nationale ay gars ñëw dañu suti gàllaaj moo tax ñu ñëw délégation nii mais xam nga mbër amee sa fit am sa fulla am sa jàmbaar ne mën nga jël combat coincé ne mën nga ko daan pour man lépp looy def rek da war a def si kanamam même nga koy wan ginnaaw di def say yiw ni moo tax ñu ñëw nii tey dooleel ko ñëw ndax ñoom dañoo tàmm loolu dañoo tàmm bu ñuy bëree se ku nekk seet mbooloom pour nuñ ko dalee mooy loolu mais coincé am nañ mbokk waaw am na nay xarakaam mu woo leen wuyu si ko te combat bi mooy gën a yomb si ay combat am allah. Mhm. amu ngeen dara lu ngeen di tiit pour la sat dara dara dara yàlla xam na ne comme ni ko kii waxee rek. double bu ma joxoon avance am. billahi damay tëdd nelaw. dis na de. yàlla xam na ne. keneen ku dul double sax ñu wax moom. làmba ji xamoon nañ ko rek lañ si am. xamoon nañ ko mooy. ñëw jàpp daan xamoon nañ da koy daan rek. loolu moo ciy am kese. incha allahu rabbi aldeba man barñi ah. mhm. am na solo kon noonu la demee woon gars yi dégg gis ngeen seetaan ngeen reportage bi gis ngeen li ci nekk Quenchel ak double moteur Quenchel nag balaa ñuy kii dugg na ci biir parce que police yi ñu mu taxaw ci biti loolu tamit sécurité la c'est normal bëgguñu fekkante adversaire am ci biti yaa ngi dégg mais ay waa këram wax nañu kon li ñuy def rek di leen jox dig daje la set ak yeneen waxtaan yoo xam ne war na ci combat bi ndax combat bi dama ne na combat jànq piir mooy combat Quench ak double moteur combat dabante laa ko tudde dox ba dab laa moo ci am parce que tamit double moteur bu tëddoon di nelaw du dab Quench ci làmb ba tey làmb boole leen kon ça veut dire que am na lu mu def am na mérite parce que am na lu mu def waaye Quench tamit nekkul mbër moo xam ne nii maanaam mu yàgg la ci làmb parce que bu dee 2009 la dugg ci làmb kii ñëw 2015 Quench tey ne ci niveau bi mu ne fi kon ça veut dire que ñoom ñaar ñi Balde liggéey nañu ñu ngi ñaan yàlla bés ba ñu fekkee ko te tal di nuyu Baba Diaw ak waa Thiam production vraiment di leen ñaanal réussite totale ci le 7 novembre di nuyu la parrain Cheikh Ba Messi ak parrain yi ci nekk yëpp waa village artisanal tamit du ma leen fàtte leen wax ñoom tamit yàlla na seen jàmm dem bala set incha allahu rabbi soreetul yàlla.